حمت دعاني دعاني دعاني دعاني شوق منك مصدره عمق فلبيك يا خذني ولبيك يا شوق دعاني شوق منك مصدره عمق فلبيك يا خذني بسم الله الرحمن الرحيم شوق لقد لمست أذني قصيدة شاعر تناهى بها ذوق وبنى بها صدق دعاني شوق منك مصدره عمق الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين mbokk yi bàyyi xel ci Sud FM seen rajo asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ginnaaw bi ñu sante suñu borom subhaanahu wa taala julli di sëlmal ci yonent bi sallallahu alayhi alayhi wa sallam ñoo ngi amaan mbégte ci dellu siwaat ak yéen ci seen jotaay bii di xamtu wa ma baynahu farqu uani kama ana min al-bu'd xamtu ñu di ko amal bis bu set ci weeru koor gi li ko tàmbulee altene ba aljuma bu 16h jotee jàpp 17h ngeen ci ànd ak seen mbokk Mbàkke Sylla asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi bàyyi xel jotaay bi yëpp ñoo ngi leen di nuyu te di leen bëggee di jégalu ci yeex a tàmbali waxtaan wi xam naa ne euh, yi ko jiitu te xaw a déborder tuuti moo ko waral rek ñoo ngi ciy jégalu bu baax a baax di leen jégalu di ñaan borom bi mu boole ñu jéggal di jaajëfal sponsor bi nga xam ne moom ñu àndal di waa pëns waa tàngal bégee ndoxu waalo waa madla li door di ñaan borom bi subhaanahu wa taala barkeelal leen seenub liggéey ñoom waa fari industriel ak waa madla li door asalaamualeykum di leen nuyu di leen bégee di leen siyaare itam di leen ñaanal di sàkku ci yéen ñaan jaajëfal oustaz Alioune Sall mi noppi ci tafsiru quranul karim bi léegi yàlla nañu yàlla defal dégg ak topp bind bi am na solo jaajëfal bu baax soppee xam yi ñuy bàyyi xel ci biir réew mi ñi ñuy bàyyi xel ci bitim réew yéen ñëpp ñoo ngi leen di bégee di amaan bégte ci dellu siwaat ci ak yéen asalaamualeykum lépp fu ngeen mën a nekk tey bàyyi xel jotaay bi ñoo ngi leen fay fekk di leen jox suñ loxob xol te di leen nuyu di leen jaajëfal bu baax a baax jotaay bi jotaayu alxuraan la niñ ko baaxoo defee jotaayu daara la it boo xamante ne dañuy bokk rek waxtaan daan indi ay laaj yoo xamante ne ci alxuraan lay jaar fiq yi nga xam ne moo ci aju waaye xam naa tey itam du doon luñ leen di indil ay laaj waaye dañuy indi ay tomb rek bu ko defee teg ko ci taabal ji ñu ànd ñun ñëpp bokk waxtaan ci euh, ndax euh, li dem ci waxtu wi bari na ànd ak loolu yëpp itam euh, ay bis gi ñu génn maa ngi sumboon aw waxtaan woo xam ne ñu ngi ci doon waxtaan nekkoon rek ci jaamu yàlla gee koor gi niñ ko war a dundaleeg ni nga xamante ne koor gaa ngi dem di jeex waaye léegi tey ñu bare bari daal di bàyyi te fekk nag jaamu yàlla moom du jeex mm, jaamu yàlla itam amul weer wuñ ko war a defee bàyyi weeru promotion woo xam bu ci nit ki di góorgóorlu ci yàlla liñ ko ciy dik pay day nekk lu baree baree baree baree baree baree bari waaye nag bu kenn yàq ay jëfam yim sonne woon ba màng ko euh, mu yàq ko ci sàggane ko ak ñàkk góorgóorlu loolu jaaroon naa ci lu yàgg waaye tey itam euh, gis ngeen ni ñoo ngi ci njeexitalu koor gi war a jëm nag ci wàllu séntu weer jëm ci wàllu wori loolu nekk loo xamante ne lu baree baree baree bari coow lay doon ci réew mi at mu jot bu ñëwee rek euh, dañ ciy coow coowa coowa coowa coow ba jàpp ne daal dara desatu ci ci lu ñu war a wax bu dewee déwénee buñ dellu si waatee mu tàmbuleeti yàlla na oyof toyu waaye xam nga ne lu jafe lay doon donte manees na koo ñaan waaye solo guñ suñu dàll ngir dox jëm ci euh, démb ci information yi nga xam ne moom lañ doon jot ba tey jii te di ko wéral mooy ca Mali ñoom def nañ communiqué buy wane ne foofa moom ñoom wari nañ ànd ak loolu yëpp joxe nañ ay numéro téléphone bind nañ ay turi wax nañ fañ ko teg débat bi nga xam ne moom lañ ci doon amal ci yoor yoor gis nga ne ñu baree bari ñoo xam ne dund nañ foofu ak ñu fa nekk ñoom li leen jaaxal mooy daa mel ne foofa daal dañ jut séentu day loo xamante ne dañ koo nattoon fixé ko doon ko xaar nga xamante ne saa yu ñëwee rek noonu lañ koy doxalee te am na ci réew ci àdduna bi yoo xamee ci calendrier la ñuy woor ak a wori ak ci eh, xeeti programme yooyu euh, lu man de xew ci yooyu yëpp am njàngat la moo xam ne ñun tam am nañ ci eh, suñu wàll ndax euh, daa raame ci réew mooma waaye amu fa coow ña fay dund te ñuy wax ak ñoom nee nañ foofu moom daa mel ne dara xewut ña doon julli ji julli ji nañ ña julli wu toog nañ seen kër jeex na waaye ñun ngoonu tey jii am na ci réew mi ñoo xam ne danañ séentu weer wi bu ëllëgee am na ñoo xam ne dañuy séentu ndax am na ñoo xam ne ñu ngi ci seen ñaar fukkeelu fan ak juróom-ñeent euh, tey nekk seen séentu bu njëkk am ñoo xamante ne tey mooy seen ñaar fukkeelu fan ak juróom-ñett Euh, suba nekk seen séntu bu njëkk daa mel ne kon coow li ca départ ba la woon bu ñu agsee ci fin bi it mën naa wéy di indi ab réeroo man naa manees na ko war a jàngat seetantal ko euh, xoolaat ko bu baax a baax loolu benn tomb la boo xam ne dinaa ci ñëw ak yéen ci téléphone bi ci 88 628 98 98 ñu bokk waxtaane ko ci daara ji danañ waxtaane itam benn xew-xew wala yenn benn xeetu phénomène boo xam ne am na nag daa mel ne réew mi dañoo jekki-jekki sopp li mag ñi fi nekkoon ñu nekk ay mbëri làmb nañ ma baal yoo xamante ne daal bis bu yàlla sàkk rek dañuy jéem a wane kan moo man ci ñoom maanaam dañ leen di tëggal làmb joo xam ne dañuy bëgg a wane kan moo man ci ñoom boo dégloo galenu wax yi eh, day mel ne kenn ku nekk day am ko bëgg a samp wane ne moo fi nekk keneen nekku fi moo fi man amut keneen kuñ koy gam-gam leel loolu nag média bi itam di ci participer lu baree bari loo xam ne fa muy jëmee am réew daa baaxut maanaam daa bokku ci li nga xam ne day jur jàmm daa bokku li nga xam day jur jàmm gis nga am réew bu ko nit ay nit dëkkee tey sàmm ka waxtaane li nga xam ne mooy jàmm ja dañuy xam reen ya ko suuxat reen ya ko euh, meññi ñu di ko suuxat te bañ koo ëndee neneen dafa am nu réew mi bindoo noo xam ne euh, ni diine ji tëddee dafa am diine ji euh, diine ji ñu wax diine lislaam ñu bari ci mag ñooñu ñuy tudd ak waa réew mi ñu ci ëpp diine woo ko muy seen diine ci biir mu am lu ñuy wax ay école boo demee ci wàllu fiq mu am lu ñuy wax ay école mooy masahib yi bari na lool waaye ci réew mi gënoon na fee siiwee école imam Malik ñu bare baree bari ci mag ñi tënku woon ci donte am na yeneen yi école yu am ci àdduna bi yeneen école yoo xam ne it yu walaabul la ci diine ci wàllu sariya yitam wala wala wala ci wàllu pas-pas ñu koy wax aqida mag ñi itam tënku woon ci benn pas-pas boo xamante ne moom lañ doon wax al asari euh, tënku woon ci ñoom ñëpp déggoo woon ci loolu ba ci riwaaya alxuraan yi ñu daan jànge sax dañ daan jànge wars di wax waddu xee wa leeli isaa sajjee Eh, di wax muusee ak yi nga xam ne moo ci aju biñ noppee ci loolu ñëw ci eh, wàllu tasawuf def ko muy école bi nga xam ne ci la ñu dugg ngir yar seen bakkan yar ci bakkanu ñi ñu àndal ñu jël eh, madrasa bi ñu wax madrasa suhdu te mooy bi nga xamante ne moom la imaam xasaali nekk kilifa ga ñoom ñëpp ñu dëppoo ci loolu ànd nag di bay yëg ne benn tool lañ bokk di ko bay muy toolu lislaam jeex na ñoom seen jaan wàcc na ba dem nañ ñun nag buñ bëggee ñëw bëgg leen a àtte kenn ku nekk ngemb mbërëm teg ko ci balance bëgg ne moo daan ka ca des ñëw ne moo wat euh, bu ñuy joxalante yooyu ci diggante yi rafet na lool baax na lool jàngale leen baax na lool waxtaane seeni jaar-jaar baax na lool waaye nag ñu bàyyi xel ni ñoom du ñuy wujju doonuñu ñuy révalante ñu itam ñoo xam ne dañuy jongante ba nga naan kii jël na ndam li euh, histoire buñ koy nett li euh, la ca rafet moo war a tax ñun ñi di ko nettali ndax damay faral di wax ne bu ñuy gestu ca gannaaw di ko xool ngir mën a dem ca kanam moo tax waaye am na yoo xam ne day tardel ndaw te baaxut te mën naa taalum réew te itam am na réew yu tàkkoon ci àdduna bi eh, day dem ba boddi konte ci biiru xeet moo koy indi te loolu léeg-léeg ñu gis suñu réew mu xeeñ ko te waru fee am ndax kal dafee nekkoon ci wàllu tarixa yi dañoo gëmoon ni ñun ñëpp benn pas-pas bi la kon yooyu mënu am mbokk yi loolu bëgg naa ñu ànd eh, tiim ko jéem ko càmbar eh, waxtaane ko waxtaanu defar waaye itam jéem cee waxantewaat ci suñ biir ndax dana bokk ci li nga xam ne danañu amal njariñ njëriñ 88 628 98 98 33 841 22 33 foofu ngeen di jaar ñëw ñu bokk waxtaane ko 16h jot na ba teg ñaar fukki simili ak juróom mbokk mi dafa bëgg a bokk ci jotaay bi asalaamaaleykum maaleykum salaam wa rahmatulah. yal na yàlla nangu siyaar. léegi rek kay. alhamdulilah ñu jërëjëf kan la. sëñ Abdou Kane Touba Darou Salaam Sandaga. waaw kay sëñ Abdou Kane naka waa Touba Darou Salaam Sandaga. allo sëñ Abdou sëñ Abdou daa mel dagg na allo salaamaaleykum. allo waaleykum salaam. sax bi na nga def. ñoo ngi sant bu baax. waaw man la Serigne Kane. Serigne Kane bisimilah Kane. waaw ma ni maanaam xew-xew yi ci am yëpp yëpp yëpp yëpp. waaw dama bëgg ñu ñuy bàyyi xel ci pétrole bi feeñ ci suñu dëkk bi. ak mm-hmm. gaz bi. Mm-hmm. parce que foofu fu mu feeñ rek seytaane dafa dugg. dëgg la. waaw loolu laa bëgg nit ñi delluwaat ci seen xel. dëgg la yow loolu dafa am loo ci loo ci bëgg a wax loo xam ne danañu amal njariñ daal. waaw ma ma mooy bu ñu deful attention. Mm-hmm. gars yi dinañ taal suñu réew. gars ah, ah, ah, seytaane. seytaane waaw. waaw seytaane dana taal suñu réew. parce que affaire tarixa yi ñuy wax. mooy yu su fee am. ah. waaw dëgg la de. Aliou Sall kenn bi ne amul xam-xam. Mhm. xam nga kenn ñamul wax ne Aliou Sall amul xam-xam. Mhm. man defar na ma defar na keneen defar na keneen. ah bon façon wax yooyu di tënnu ci biir dama bëgg nit ñi muy état bi muy population bi nañu bàyyi xel ne dañoo bëgg a taal suñu réew. jël suñu pétrole wala jël suñu gaal. d'accord man loolu rek laa bëggoon laa amul lu may wax. am na solo sëñ kan. ñu ngi bàyyi ci xel te yéen ñuy wax ñu ngi di leen déglu ngeen gën gëstu loolu daal. jërëjëf kan. incha allah danañ ci gën a gëstu euh, donte euh, gëstu boo gëstu bàyyi caw lef loolu itam ab tomb la boo xam ne tey mi ngi fi ñuy waxtaane pétrole beeg gaz bi euh, am na télé bu ne ci bitim réew bu ci def benn gëstu bu xóot ba am sax euh, ñum ci joxoñ baaraam kenn ca ñooña ma ngay def euh, conférence de presse jamono ji loolu ñi nga xamante ne ñooñu gën a jekku fànn googu dañ ci ñëw gën koo yaatal ñu dellu si waat ci mbirum diine ji ak yi nga xam ne moom lañ bokk te jotaay bi di bopp daara ji ñu ànd waxtaan ci 88 628 98 98 33 841 22 33 wama sumtu lkaramata bizuhuri wama yawma mi ngi noonu ndaxte bu fekkente ne ngoon gi dañ ñaan la yow ñëwal waxtaane sëb sëriñ bu fekkente ne da ko bëgga bakk koo samp euh, euh, wala nga am noo cay doxale loola lu rafet la bu fekkente ne dañ caa yem waaye bu ca ëllëgee bu ñëwee ka ca des ñëwal moom itam mu ñëw samp kosam ca wet ga bu ko defee ñu ànd tàccu Euh, boo xoolee waxante ba nga xam ne mooy am ca suuf waxante bay am ca internet ba la xew ca biir mbokk ga ak ya nga xam ne moo ca am am na noo xam ne buñ ko ni buñ ko ni mooñee waxin wi ñëpp gis ci seen bopp te loolu yëpp day nekk lu rafet am na koo xam ne nag moom danaan déedéet diw doo nga fi nekk kenn nekku fi kii ne déedéet diw doo nga fi nekk kenn nekku fi kenn ku nekk di taaw yi jëmee sa wet loolu amalu ñu njariñ bu fekkee dañuy waxtaane dëgg rek te di ko delloo ci diine dañu gis ne mbir yi moom du loolu mbaax dafa yaatu yàlla dafa yónni yonent yu baree baree bare alayhim salaatu wasalaam jël yonent yàlla Muhammad teg ko ci kawam yonent bi di fi jógee ne diine jaa ngi noonu ñi nga xam ne ñoo may doon ñooy borom xam am mag ñu laxasaayu nag ñoo xam ne daj nañ ci lu ne ba réussir seen mission am njaboot gu baree bare gu topp seen ginnaaw ndab lu ci waay sëgg te góorgóorlu xéewloo te rafetal ko dana am solo lool waaye bari na kuy supporter te salaamaaleykum waaw man la sa xarit. waaw bisimilah sama xarit. man man la sa xarit bro. bro na nga def. <laughs> waaw mais Mbacke rek. di leen bro. di la ñaanal koor gi ñu tuggul nii yàlla nangu ñu suñu koor. amiin mais bro koor gi yëpp dégg nga. mais mais da nga ñëw di conférence ah. waaw mais gisuma la ba ma ñëwee. waaye doo léegi man ma foog ne affaire sama sama soxna yi foofu dana a joxe suukaru koor rek la jàpp yow. mais loolu de pourtant nag loolu laa bëggoon ah, waar de doy na waar de naa ci yéen. jërëjëf jërëjëf. waxu gaz bi ak pétrole ngay wax nii non loolu ki dugg moo ko wax waaye man kay maa ngi ci temu diine ji gaz ak pétrole xaw ci dara. Ah, kon kon gën na gën naa ah, ki dugg daal ne àddina. yow kay boo ci amee loo xam lu lu am njariñ man nga ko wax waaye man moom xaw ma ci dara. dama ni waaw ah. dëgg moom ci yàlla lay jógee ci moom lay dellu rek. dëgg la di dëgg la. yàlla ñu yàlla doon sutura ci ni. Hmm. yëpp àddina bi daal ku yóbbu rek jubal. allah waaw kon politique mooy yàlla dëgg moo koy yore moom dëgg la dëgg la. waaw yàlla na yàlla doon sutura yàggale fi oustaz. jërëjëf amiin jërëjëf jërëjëf ngi lay nuyu te di la jaajëfal bu baax a baax a baax loola moom dadul sama lef dama caa xamul dara turi société ya ko tënk sax damaa xamul nu ñu leen di waxee moo tax euh, ma bëgg caa gàttañ lu Adama Ndione bu ubbee antenne bi ci wax sa xalaat ngeen ñëw ci gaz beeg pétrole beeg yi nga xam ne moo ci aju loolu c'est très politique donte am na njariñ loolu te manees na koo waxtaane waaye bu ñëwaatee nag ci daara ji itam tiim liñ tiim ci diine ji mu gën a fuuf gaaf gën fuuf per ndax li ñu mag ñi indil ci réew mi moo ëpp euh, dayoo fuuf loolu loolu nag war ñoo laxasaay ñun ñëpp ci sàmm ko euh, ba mu ñoŋ defe naa ñoom képp koo xam ne danaan ab taalibe laa ci mag mu man di doon ci réew mi te taalibe ga di dëgg mu fas yéene caa teg tànkam dana am geneen jot gudul jotu détail wala yi nga xam ne moo aju ci loolu salaamaaleykum kooku génn na 88 628 98 98 33 841 22 33 subhaana alladi asra bi abdihi laylan min almasjid alxaraami ila almasjid al aqsa asalaamualeykum aleykum salaam wa rahmatullah bisimillah Oustaz Mbacké Sylla waaw ziar naa la bu baax a baax yal na yàlla nangu siyaar na ci yitte ñu ngi sant rek ñu ngi rafetlu seen bu baax a baax jërëjëf jërëjëf jërëjëf waaw débat yi am ci télé man de jaaxaluma pour pour pour waaw li ma jaaxal mooy ña koy ña koy organiser. ñi koy organiser. voilà ñi koy organiser. animateurs yi. waa kay ñooñu ñoo ma jaaxal. lu tax mu jaaxal la ndax man bu fekkente ne man damay damay damay waxtaan kilifa gu baax. waaw ci fu ma toll man may wax ci diine ma toll. waaw ki may ki may woo di ma wax loolu ma kooku naa ma su sama gàggee mu war mu war waa mën a gàggandi. ndeysaan. nga xam si saa yoo ko gisee mu ngi ci ndawar wala di di tëb guddeeg bëccëg. ndeysaan. woo la rek teg la rek te muy tere faatee bu ma tëkk. Ah, xam nga léegi dafa eh, dafa tollu jamono joo xam ne ñi nga xam ne ñoo yor fomm di ko animé. bu diine ji jotee itam ñoo koy jël def ko mu nekk diine folklore xam nga loolu moo am am na fi xeetu eh, ay siwaal ay xeetu ndaje yoo xamante ne nii dañ koy tudde turu diine waaye daanaka moo concert ya amoon dara wuutalewu leen benn la kiif kiif waaye nag dangay jël sensé mbubb meeg abiyaas bi sensé décor bi ña yoroon lee yoraat ko eh, <laughs> kenn xamut réew mi nu mu dem nu mu demee réew mu ñàng lañ yor asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatulah. bisimilah bisimilah. bu baax. jërëjëf yal na yàlla nangu siyaar. alhamdulilah jërëjëf jërëjëf. ñu rafetlu dawaa bu baax. baarikàlla jërëjëf. décision xalaat décision xalaat ñun mooy. Ah. télévision yi ko def ñoom ñoo war a si mhm, ndax man dama jàpp ne bu dee dëgg rek moo ñu ñor ak lu baax. Mhm. bu ñu ñëwee di wax ci kàddu Alaaji Maalik bi dee lu baax la wax. waaw waaw. wax sëñ Tuubaa loolu lay wax du am différence. dëgg la de. kon bu dalalee kenn mu wax. Mhm. jarul ñuy dalal keneen. Mhm. waaye nag ça dépend ci ki ñu dalal it li muy wax ndax am na lu muy wax dañuy. Eh, eh, moo tax ma ne responsable bi mooy kay wax. Mhm. ak ki koy wax loo. ndax bu dee ñun ñëpp dëgg rek moo ñu tax a jóg. bu kenn waxee ne day la dëgg jooju topp ci. macha allah ndax suñ Tuubaa Alaaji Maalik rek ku mën ci doon comme ñoom ñëpp jaamu yàlla lañ utee amu ci. yàllaa leen ñoroon. dëgg la te ñoom kenn damoo ut ci murit laa wala ci jàll laa ñoom ñu topp. sëñ Tuubaa ndamoo wut ne murit laa ndamoon jaamu yàlla lay ndamoo. dëgg la dëgg la. Ah, yaa jumlatal xalq ishadoo lii yow ma fii yow sunu mujrimiina law ma. Mhm. bi kaw nii daarayn xabdalaay xadima xabdi ibni xabdilaay. ndeysaan. muhibba kulli muslimin wa muslima. dellul foofu de. waaw ah, moom kay muhibba kulli mujrimin wa mujrima. wallaay bu ñu delloo ci ay waxam ak i mbindam ak i jëfam. waaw buñ ko nettalee donc penc bi moom kenn du am loo ci naan. nit kenn xamul léegi ñu doon man dama seetaan télé yenn saa yi jooy sax moo may defe. ay gore yow yàlla nañu yàlla jiwal li ñu baax ci jërëjëf ñoo ngi lay jaajëfal te di la ndokkeel di bëggee sa dugg bu am solo boobu wax nga dëgg de euh, mbir bu amee noonu dañ koy xool am na ci loo xam ne nag moom site internet yi la ak euh, yi nga xam ne moo aju ci yooyu yëpp seen YouTube yeeg yi nga xam ne moo xew ndax waa ji li muy publier ci seenam ay vues lay bëgg maanaam lu vues gën a bari moom ca lay ame la muy bénéficié woo nga xam ne moom même bu bindee ab titre bi li muy bind bu ko titree day mel ne ku naan gaynde yi rëcc nañ nga xam ne foo jaar danga xool yan gaynde ñoo rëcc yow ba dem cliquer ji ko fekk araamse ko loolu dara nekku ca léegi nag moom lu wax ji gën a ñàng lu mu gën a doone aw toj penc moo ko gënal ndax ci lay ëpp ñu ko seetaan yi xam nga loolu garaaw na de salaamaaleykum waaleykum salaam waaw euh, euh, sëñ Njaga sëñ Njaga gën naa dégg de waaw waaw koor gi la gi la. ba da ngaa ragal koor. ah macha allah. damay ah, doy na waar de doy na waar de. doy na waar sant alhamdulilah. ñu leen leen di jaar bu jërëjëf jërëjëf. di leen jërëjëf jërëjëf yal nañu yàlla boole jégal waaw yal boole jégal. macha allah amiin ah ñu teew ay dëwër waaw man day xam naa réew mi des fois damay xool rek. waaw moom de kenn xamul nu mu bindoo daal. damay am lu ma damay am lu ma naxari lool. dëgg la de. damay am lu ma naxari lool. wallaay wallaay wallaay ndeysaan. ñi ñi bokk seen bokk nga yow yow mi ci doonul dara ba yow mi wax pour bëgg a dund wala kii commentaire ndax bëgg a yàq. waaw waaw ah. ñi nga xam dañoo bokk seen bopp. Ah. xam nga damay laaj waaw sëñ sëñ Naatu. waaw sama dañ ci xombal. waaw. na ma na ma daal ci waxi waxin bi. waaw sëñ sañ dam sëñ dam xariloo sëñ mënum sàmbate waaw waaw ñu ñu ñu ñu ñu mu bi ñu ko ñu jox ko sëñ mm-hmm. ak yoreen nañ daal mm-hmm. ñooñu ñooñu dañoo bokk seen bokk ñoom dëgg la bokk gi kay moom kenn waaw léegi voilà léegi yow après yow bi nga xamante ni doonoo ci yow mm-hmm. nga bëgg wax loo xamante ni yow taxale rek la ci jubli taxale rek mm. man damay seetaan télé bi toog di xool seetaan wax. sax suñu jaga wax ji moom bu bu baaxoo nit commentaire yi lañ ñu war a daal ñun. ñun ñi nga xam ne ñooy commentaire waxu gars yi. waaw waaw supporter daal ñoom ñoo xaw a doy waar lool. Ah, <laughs> supporter yi daal dañ dañ lakk dëkk bi moom. ma yàlla xam na ne naxar na ma kenn mës koo gis. jërëjëf jërëjëf Seck man dama baax lool jërëjëf wallaay seen baax gi kay landi na moom jërëjëf jërëjëf te daan baax ak rafetalante ci seen biir wallaahi waaw seen kéem tolluwaayal kàttan te nag loolu réew mi amoon mooy jàmm ji itam te jàmm jooju it moo jigee gannaaw yow boo watee taxaf gi benn boor faaw nga jéem ko wat beneen boor ba da nga koy jéem a ci digg bi bu ko defee ñëpp yem ci garab gi moom ñor ba noppi mooy garabu lislaam ci la mag ñi nekkoon doon góorgóorlu bàyyee ñu fi ndono li nag ñun dolli wuñ ci dara nga xam ne li mag ñi bindoon dong waxuma la sax ñi maas ko wala ñu ki waaye jàng ko dong mënuñ ko liir liir li mag ñi bindoon dong dund programme booba rek te nañu ticc waaye doy na waar salaamaaleykum kooku génn na 88 628 98 98 33 841 22 33 ayca asalaamualeykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah bismillah sos waaw sëriñ bi na nga def maa ngi lay siyaare bu baax a baax jàmm rek kay Abdou Khadir Sylla Port Abdou naka waa Port ñu sant yàlla bu baax la ziyaare bu baax baax a baax nag jërëjëf ana yëf yi yéen a ngi dugal ak a génnee <laughs> waaw ñoo ngi ci kaw ah noonu la man nag il faut ma ñëw port jàng <laughs> bunt bi laa nekk nag ah ci bunt bi nga nekk nekkoo transitaire ak yooyu waaw déedéet ah, <laughs> man man kan moo may jàngal loolu danaa leen gis ñu ma romb nii rek daa ah, xam naa ne kon kon baal ma ñëw ne ci bunt bi man it waaw ñëw ci bunt bi ginnaaw ñoom tàyyiwuñ daal yéen bu ta bu leen tàyyi rek. waaw xam nga mi ngi noonu de. waaw bu ñu tàyyi ndax day wane émission yi dañoo waxuma daal li ñuy def woo benn nit. Mhm. toog loo ko ci benn de temps. Mhm. il mu wax ba day wër ne mën loo xamante ni ne. waaw ah, dëgg la de dëgg la de gudd. Mhm, gudd gi na. léegi nag fii Sénégal ñaari boo nee li mu liggéey. maam El Hadj liggéey ci réew mi. kenn ku ci nekk ñoom ba ñu liggéey ñun ñi kenn juddoo ci mhm. dara ñorul woon woon lu baax rek ak diini ji wallaay ñoom de lu ne lañ ci daj jeex soxla wut ku leen di xulool soxla wut ku leen di campagne soxla wut kuy propagande waaw jeex na mi ñoom liñ def yàlla nangu na ko te da koy wone am na solo jërëjëf Abdul Xaadir te ba àdduna tukki nag ci réew mi dana am mbooloo mu bëree bëree bari moo xam ne eh, Cheikh Siraaji Malick la ñuy yaakaar liggéeyam boobu la ñuy sagoo noonu it lay amee mbooloo mu bare baree baree bare bari moo xam ne Cheikh Ahmad Bamba la ñuy yaakaar liggéeyam boobu la ñuy sagoo baax na lool ñu leen di waxtaane man waxuma sax ci cadre boobu rafet na lool ku ko gis itam danga nga lool ndax bu ñu waxtaanee seen jom waxtaanee seenu njàmbaar waxtaane seen yitte waxtaane seen bëgg xam-xam waxtaane niñ juboo woon ak borom bi subhaanahu wa taala waxtaane ni ñu bëggee woon yonente bi alayhi salaatu wasalaam ba luñ jur ko mu jaral lépp dama dama ne loolu ku ci bëgg a jàng mën nga cee jànge lu bari waaye bu ñu noppee nag ba dellu siwaat nun man ak yéen eh, ak ku ak ak ku mel ci doxin woowu ñu moytandiku nag commentaire u yàq eh, yastamiwoon al xawla fa yettabiwoon ahsana dafa bokk ci li nga xamante ne nii rafetal ay wax lay ñëpp ko war a góorgóorloo salaamaaleykum waaleykum baax la. waaw bisimilah bisimilah. waaw waaw baax a baax a baax. jërëjëf yal na yàlla def. man de. rajo bi bu baax te déglu ci téléphone bi. waaw man waaw. am wa salaatu wa waaw. am nga loo xam ne daal yéen ñi nga xam ne yéen a nekk ci diine yéen a ko war a wax. Hmm. dem ci kilifa diine yi ñoom ñëpp ñu toog dañoo waxtaan ak nit ñi. Hmm. doon na seen xel. Hmm. yoo xam ne nekkuñ ay noon ay ta ay ay ay jullit lañ. am na ci ñoo xam ne nag euh, ñoom maanaam ñuy def li moom moo leen moo leen arrangé. ñuy waxante lu ñaaw ñuy ree ak kontaan moo leen arrangé. waaye ñun ay jullit lañ nañ bëreeg ay ñi xam ne. ay julli xàqan warta noonal moroomu maa ngi doog a dugg ci roba ndax damay dama lay déglu saa su ne te waxtaan wi am solo maa ngi lay baax te man wax kilifa diine yi nañ dajaloo waxtaan ak nit ñi buñ ko gisee ni nit ñi gisee ñoom ñu toog dajaloo wax doon euh, doon nit ñi ñoom doon doon waaw mais nag kenn ku nekk di xëcc jëmale sa bor boor te ñun ñëpp bu yaakaar euh, yeneen yàlla sallallahu alayhi wa wax dëgg baax a allah am na solo lool. jërëjëf ñu ngi lay jaajëfal bu baax te rafetlu sa dugg bu am solo bo di xaar keneen. من ذا سيدرك صاحبي إن كان بالمكر ائتمن من ذا سيدرك صاحبي mbokk mi dafa bëgg a bokk asalaamaaleykum. maaleykum waaw yaaram na nga def. ñu ngi ziar alhamdulilah. waaw rek ñu sant baax. alhamdulilah alhamdulilah. tubaarikàlla. Uh, Ousmane la Pikine. Ousmane naka waa Pikine. Uh, alhamdulilah ñu ngi sant bu baax. alhamdulilah tubaarikàlla. man daal yaakaar naa Mbacke. Hmm. Uh, dëgg la sax ñu présenté ci la mais tam suñu woykat ndaw yi kalaatu ndaw gi di woy léegi. ah woykat yàlla ah, yàlla xam daal. mooy jàngkat jànkar nday mu waaw jànkar bu yu bees génération bees ñoom kat dañoo xasaa xasaayit jànguñu dara ah. dañuy dañuy dañuy jéem a olofal olofal yoo xam ne moom kenn xamul ban message lañu yor ñoom it loolu nag bokk ci yi jaxas yëpp loolu moo ci la bokk. fi mu ne yëpp loolu moo ci la bokk. da nga dem ci conférence am ku la siif yor micro bi baat bi day neex lool waaye da yëg ne daa sonut ci jàng daal. jéemut a mën a jàng xasida a xam muy. wala bu ko defee ay tuuti penc rek lay woy. mu ngoog <laughs> eh, eh, genre ma réer ndoo la ñuy doon ah. ma dara naa lu jaxasoo. ñoom ñoo ko ah. jaxasoo. génération léegi. Mm. xale yu ndaw yi. Mm, mm. jéem ñu jàng dara wut na xam-xam jéem dara lu dul di jël seen micro di gaarawaal di def seen fanke di tàcc. loolu de moom ñu ñu lekk wax nga dëgg de wax nga dëgg léegi xaalisu taalibe yi ci ci zéro. wax nga dëgg mbir mi de neex rek. mbir mi de daa mel ne dañ ak riir am na lu baree bari loo xam ne fëkk dootu la ci yóbbaale daal. ñun dañoo mën a dañoo mën a sonn ci ay détails ak lu amul njariñ. mu ngo mu ngo waaw voilà loolu loolu moom moo jaxle kër yëpp nag loolu kër yi moo ko jaxle léegi. Mm, mm, mm. waaw ba may borom déglu ak ñoom Baye doon nga xam ne ñii ñoom ñoom Ablaye Niang. ñoom Baye Ablaye ndeysaan ñoom dañ xam ni ñii ay jànk dëgg lañ. dëgg la dëgg la. waaye jeunesse gi léegi mooy alhamdulilah daal. dëgg nangu ñoo gëstu nangu def danañu bëggal yomb maanaam bës ñu bëgg bës. waaw xam nga baat boobu nga wax mooy li mooy a yàqal ñu bare bari nag bës. mu ngoog bës bës yàggut moom daa mel lu naan tuyu rek la tuyu jooju nag. voilà mu ngoog <laughs> bu réer mi bu réer mi jàllee mu rak wut ko nag moom ndax ku mas a def aw toj penc ci dëkk ku ne danañ la tudd ba nga doyal. ñu lay tudd ah. amul solo nga ne ci yoon rek am solo. loolu amul njëriñ sax amul <laughs> ah, ah, jërëjëf oh, oh, oh, ñoo doon xéwal rek ñoo doon xéwal baax jërëjëf jërëjëf d'accord jërëjëf Oustaz Mbacké yow ngi lay jaajëfal bu baax a di la ndokkeel bég naa ci yow لرياضك الغناء كم 88 628 98 98 33 841 22 33 foofu ngeen di jaaree. ngir bokk ci jotaay bi ñu ànd ak yéen ci xamtu asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. xaaj ma yoro. Sër Mbacke. Fall Fall. Eh, Sylla Ngari. jàmm rek Sylla Makhtar. Fall Fall. naka yi tey. ñu ngi ci de alhamdulilah. naka koor gi. koor gi ñu ngi ci ñu ngi góorgóorlu. waw ñun maliens yi bari na ci ñun ñu woori tey. <laughs> Mbacke da itam. Ah, Aliou Diarra bi ah man lébu malien. Ah, bambara ah, daal naka yitte yi nag. <laughs> sant rek alhamdulilah. naka koor gi. ñu ngi ci de alhamdulilah ah mi ngi tàggoo de mi ngi tàggoo de. ndeysaan yàlla ñu yàlla nangu. ak eh, njëriñam yu bare. wallaay ndeysaan wallaay. ak xéewalam yu bare. wallaay ndeysaan wallaay. ndeysaan ñun ñëpp buñ seetloo naan bi koor gi ñëw ñu ngi doon yëg suñu yaram dara muy feebar wala dara. ndeysaan day dëggal waxu yenente bi sallallahu suumu tasixu. wallaay ndeysaan. wóor leen rek ngeen daal di wér. est que est bu dee ci wàllu taqwa bi tam li ñuy saggan saggan da ngay yëg ni am nga dara taqwa. wallaay wallaay waaw léegi nag jikko yooyu nag dañoo bëgg bu mu waree nag nga continuer ko. waaw ñu jéem ko faa téye. waaw ñu jéem ko faa téye. waaw ah, te niñ ko faa téye. waaw ñu ngi lay ziar bu baax nag. nga de. waaw loolu de la yàlla dogal. yàlla li ngeen xate baax waaye bég naa lool. jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf maa ngi lay béggee bu baax a baax euh, te di la ndokkeel 88 628 98 98 El Hadj Modou Thiam maa ngi lay nuyu di nuyu sëñ Cheikhou Diagne di nuyu sëñ Fallou di nuyu waa pare yëpp di bég ci ni ngeen di ànd ak ñun jotaay bi yéen defe naa tey mooy seen 29 euh, ci ñiy séntu séntu bu njëkk ngeen bokk euh, du ngeen ma jaay benn bis salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah bismillah sëñ Mbacke ñu ngi de. jërëjëf yal na yàlla nangu siyaar. waaw euh, naka koor gi. alhamdulilah ñu ngi sant bu baax a baax. waaw daanaka ñu ngi ci cat ñu ngi waaw ñu yal nañ ko yàlla nangul. amiin waaw na nga def. waaw maa fi rek alhamdulilah. bisimilah. waaw dëkk bi moom xam nga rek Oustaz Mbacke yàlla xam doy na. Ah. waaw xam nga tey exemple rek laay joxe bu ñu nee tey ñëpp ngi dem Touba. ah. waaw dina am ñoo xam ne Mbàkke dinañ dugg biis ñuy dugg tata ñuy dugg car rapide ba ci sama sama classe gi yëpp daanaka njëmbat la ñuy dugg. Mhm. mais du tey jour màggal dina fekk ñëpp. Mhm. xam nga. Mhm. kon dëkk bi daal nañu rafetal nañu rafetal. te doon benn te xam ne mag mag ñi moom yàlla def nañ liggéey na la ñuy liggéey. ba te ñoom di rafetal nañ ñoom di rafetal nañ ba tàyyi. waaw rafetal nañ ba dem. kon ñi ñuy topp si ginnaaw nañ jéem a jël suñu tànk teg ko si si ko mag ñi tegoon. waaw loolu mooy dëgg. jërëjëf. waaw ñuy baalu àq nag. macha allah yal nañu yàlla boole jéggal maa ngi lay nuyu. di la bëggee it di xaar keneen. ayca talahhuti wa tawqu sadiqi ala darbi al-iqaa'i wa saahibi naam hazzani shawqun kama hazzaka ash-shawqu 88 628 98 98 asalaamaaleykum allo salaamaaleykum ah ñu ngi koy jaajëfal baax te di ko ndokkeel ah jërëjëf kon kay man tubaarkàlla man it <laughs> ah noonu la demee sëñ bi càmm est-ce loolu de seetlu ma ko ci woon maa ngi lay jaajëfal baax a baax 16h jot na ba tey ñeent fukki simili ak juróom fii ci Sénégal ñoo ngi lay nuyu asalaamaaleykum. aleykum salaam. bisimilah. jërëjëf ñoo ngi sant bu baax. madame Ndaw la sama koor gee jàpp rek. waaye man xam naa la kay Dramé Dramé bi la koor gi jàpp. Mali laa dëkk maa waroon Mali. ah Mali nga dëkk. ah maa ngi feeñal sama mbokk ak yow bu baax yow ñoo bokku lépp. man maa <laughs> ban dëkk nga dëkk ci Mali. ah man mooy dëkk ba weer yu feeñee. <laughs> waaw waaw. <laughs> bisimilah jërëjëf jërëjëf. ñu leen am. ndeysaan alxuraan am. jërëjëf. sëriñ sallallahu alayhi ñun yéen lañuy sagoo yéen lañuy tiitaroo. alhamdulilah. da ngeen siggil lu ñu am kaweel du ñu am. jërëjëf jërëjëf. Sow sax li ma gën a neex si émission bi. Hmm. ñun yàlla dogal na lu ñu xam-xam la waaye am na ñoo xam ne ñu ngi oote si émission bi yàgg naa ko déglu ay ati ati at. Hmm. am na ñu ngi wootee ku leen dégg xam ne ay borom xam-xam lañu. waaw loolu yàlla xam li ñuy wax. Hmm. mais lan moo tax ñuy wootee gën li ngeen di def. ak bëgg ko dëgg la. man nag yal na leen yàlla taxawal. amiin yal na leen yàlla dooleel. amiin yal ngeen ko gën a man ci barke alquran. amiin yaa rabbal alamin barke kool ma. amiin amiin ma sama papa Diouf. jërëjëf ak sama jaam bi sama jaam bi Oustaz Mbaye. <laughs> Oustaz Mbaye dinaa ko nuyu baax moom heure bi heure ñaare du wax un rek lay wax. jërëjëf jërëjëf jërëjëf madame Ndaw Dramé ñoo ngi lay nuyu baax te di leen ndokkeel bu baax a baax. 88 628 98 98 33 841 22 33. شجاع الذهول ربما تخرج الحياة شجاعا جده لا يعد في من يقول ربما يعشق الجبان المنايا حينما يعتري الشجاع الذهول ربما تخرج الحياة شجاعا جده لا يعد في من يقول إخوة الدين ليس فينا ملول فينا ملول السلام عليكم وعليكم السلام بسم الله بسم الله الحمد لله ma nekk ci machine yi rek man la Yankhoub na nga def naka machine yi naka li ngeen di def ba mi ngi wàññeeku waaw ñoo ngi góorgóorlu ñoo ngi ci bu baax a kenn de waaw saa kay moom macha allah ah. toog rek comme dab rek comme jaar nga ci moom ndeysaan bu leen tardeel kenn mm-hmm. te na ngeen julli ji itam faatu ci ñaan leen di ñaanal bu baax a baax jërëjëf yal na yàlla nangu lépp mais Mbacke xam nga ñun lan moo ñu sonal Mbacke ñun dañoo mënul dañoo xamul supporter ak bëgg hmm. Sénégal dañuy mënuñu supporter xoolal équipe nationale demaguñu sax mais lu nekk ñu ngi leen koy yàq waaw moom kay daa na te demaguñ sax waaw lu nekk ñu ngi leen koy yab classement bi ne ku nekk ñun daal lu xew rek phénomène bu xew rek ñu ànd ci mm-hmm. Mm-hmm. te ba pare man bokk na ci li ma gën a metti Mbàkke ñi nga xam ne ñooy dirige caaxaan yi mm. su diine jotee ñoom la ñuy jox kàddu ñuy ubbil sëriñ si ñoom ñooy wax ñooy def lépp te gis nga Mbàkke réew bi wallahi lazim ñun am nañ or am nañ ay jamaa ci suñuy sëriñ mm-hmm. ku ci ma ni Maabdu man maa ko dégg muy wax mu ne Alaaji Malik nee na boo ñëwee nuyu nit mm. mu fay la mu ne la ban tarixa nga bokk nee na roccil fa loxo nga dem te xam ne seytaane dugg na. waaw noonu la ko waxee mu ne ndax loolu pas-pas la. Hmm. te lee yàlla moo la ko sant. Hmm. xasida bi ma Abdou bindoon na diggante Touba ak Tiwaawan xasida boobu ñun ñëpp xam nañ ko. Hmm. wax ci ba taay. mais senegal daal man daf maa jaaxal supporters yi li may wax rek supporters yi ñoo xamul nu ñuy doxalee diine ba pare dañoo jàngul. dëgg dañoo jàngul ndax ku jàng ni ko sëñ Maodo di waxee ku jàng di nga rusa toog ci rajo wax loo xam ne dañ la koy xeebee. wallaay ndeysaan. maa ngi ziar bu baax a baax. jërëjëf jërëjëf yal na yàlla nangu ziar yaa ngi ñu ngi lay nuyu. 88 628 98 98 33 841 22 33 maa ngi ci catul jotaay bi di leen jaajëfal bu baax a baax ci ànd gi ngeen àndoon ak ñun ci jotaay bi tey dañoo indi woon euh, lu mel ne ab tem rek mu wuutu laaj yi nga xam ne moom lañ doon indi ndax ni waxtu wi tëddee ak itam euh, di waxtaane lenn ci actualité beeg yi nga xamante ne noonu la tëddee di leen jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal mboolem ñi nga xam ne jot nañoo woote di jaajëfal ñi doon tocc toccal te egsi wuñ di leen jéggalu bu baax a baax lu jiw a jeexu neexul jógu ma jël kii te tàggoo salaamaaleykum. waaleykum salaam. bisimilah. Oustaz Mbacke ñu ngi lay ziar. yal na yàlla nangu ziar. di rafetlu di leen ñaan gudd fan di rafetlu seen bi nga jox am solo ndax diine képp koy rafetal rek ñu ngi lay ñaanal yàlla. alhamdulilah. te réew mi di nekk Sénégal li fi suñu mag ñi liggéey. Hmm. nit mënu koo soppi te nit mënu koo yàq. wallaay wax nga dëgg. kon yàlla na yàlla taxawal ñu ngi fajal suñu couleur ak yéen. jërëjëf. ñaan yàlla yàlla guddal sa sopp naa la lool te dama lay bàyyi xel bu baax a baax. jërëjëf koo sopp sopp na la. Alioune Alioune Badara Ndiaye ndax da nga def ay actes xam ne ma koy déglu ma si laa la soppee ba léegi. jërëjëf jërëjëf. yàlla yàlla tax Sénégal nag ñëpp ànd doon benn te jàppante bëggante te yàlla tax ndax nitu yàlla lañu liggéey. Mhm. dañ ko dimbali seen bopp. dëgg la ngir dimbali jaamu yàlla yi nekk si biir réew mi. dëgg la kon li am solo moo ñu doon benn jàppoo te yàlla rek tax. dëgg la. yàlla na yàlla guddal sa nga dul Alioune Sall jërë ngeen jëf seen daal. jërëjëf ñu ngi lay fay nuyoo moom itam mi ngi lay nuyu moom oustaz Alioune Sall auditeurs yëpp a ngi békk ci sa boobu mooy auditeur bu mujj bi ñu jaajëfal ko baax sant ko gërëm ko ndokkeel ko ci duggam googu ndokkeel ñi nga xam ne jot nañoo dugg ba agsi yëpp masawu ñi xam ne ñu ngi ci serveur bi mu fees dell te mënuñoo egsi di leen jégg lu a baax ci eh, noppee ba dog ba noppi danaa ànd ak oustaz Alioune Sall ginnaaw bi mu noppee ci Riyadou Salihin ñu ñëw ak moom ci yes yasalunaka fi diini wal xayaa loolu ginnaaw ndogu lay doon incha allah bu guddee bu min wi weesoo oustaz Alioune Mbaye dana ñëw ci gunge koor fajar danañ dellu si waat jotaay boobu di al misbaax 5 heures 30 lay doon mbokk yi bu leen tuxal seenub déglu sant nañ leen gërëm leen ñaanal leen delluwaat di waat ci yéen ñaan yal nañu yàlla boole jàppale te boole ñu sàmm asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu